xam rek moo ngi biseeg bise mu ne moo di Aïta Diagne waaye di nuyu ki moom itam mu ngi foofu biir biseeg di kontaan ci mu baax a baax Abish wala Habib Touma maa ngi koy nuyu baax a baax depuis Amsterdam moom itam muy bàyyi xel télévision Futur Média nu lay sargalee rek Touba Thiam ak ñi mu àndal ñëpp Moustapha. Mm. sargal ñëpp loo waxati ci bisik. bisik comme d'habitude rek comme wax ci du jeex. Mm-hmm. seen xaalis bi ngeen di bëri ñu naan mm-hmm. bàyyi naa ak bëriwul ah, ngeen deen déposé ko ci la banque bisique mhm. daje fa ak ay conseillers ñu jàppale leen ci ni ngeen di gérer seen xaalis xaalis dafa naqaree gérer mhm. surtout un jeune champion bu am buy commencé toucher des millions mhm. du xàmmee sax li xew parce en général euh, du ñu am culture denc xaalis xaalis ci poche man mat noonu daan dundee de xaalis ci poche non su combat amee mais da nga ko dugal. sóoraale suba boo xëyee génn bu ngoonee boo ñëwee da ngay fekk lépp jeex. dëgg la dajeeg ñu man carrière bi nag kenn comprendre ko carrière dafa gàtt kenn xamul lan la. Mhm. da dégg ñoom Tafa gi def na 23 ans de carrière. mais loolu ngay dégg mbër bu def bu nekk ci làmb ji bëri 5 de carrière mbaa 2 mois de carrière rek carrière même fa ñaata mbër ñoo dugg ci làmb ji bëri benn combat ñaari combat gaañu mootuñu bëreeti. dëgg la waaw ah, ko ci banque yi ñu ah 92 hmm. bu Tafa Gueye def feu flamme. Ah, allah bokk ci parmi les. Hmm. milliardaires macha allah. <laughs> c'est pas trop tard parce que borom karaw ñuul ñàkkul dara sama nijaay la macha allah <laughs> war naa mën a am lu ne ci àdduna moo ki nga xam ne moo di Mbaye Fall ñu ànd ak beneen affiche affiche bi nag tey di ñu ngi ci ànd ak ba tey rek dese di Gambie ndax nag Gambie suñu dëkk li ñu koy faral di waxee Gambie ak Sénégal benn bopp la kër mënu koo xar ñaar hmm. sargal nag ñëpp ñi nga xam ñoo di Gambie waaye balaa loolu Moustapha damay ñëw ci deuxième jël bi ci diggante Koña ak ki nga xam ne moo di dumbul. Mm. ñu ànd xooli ko Kandji production moo ko tëggoon. ñoom ñaar ñu ngi leew diggante dumbul ak Koña waaye lumière bi rek xanaa lumière RTS Mbao c'est pas normal fi ñëpp toog dumbul ak Koña Koña Habib Ndiaye dumbul Yoff. Ibul Malik ñaa ko indi ndeysaan ak Balla Diouf koña Abim Ndiaye indi ndax école de lutte Abim Ndiaye la ne ah non bu rëy la ndax stade bi fees dal la ndeysaan dumbalat koña ñu ngi damantay baram ñu ngi damantay baram eh dumbal song na na ko koña na ko mu toog koña wéyal na ko mu toog Eh, wéyle na ko xalab na ko boobu ba tey nag dimanche ba tey coow li pënd bi wureegul benn yoon mm-hmm. parce que kenn ku nekk ah Cuba Caam ak naan nii la ko daanee kii naan naan nii la ko daanee Moustapha décortiquer ñu làmb ji leeral ñu nan la daanee ki nga xam ne moom moo di dumbul oh, dumbul ok merci beaucoup euh, Mati identifier ki nga xamante ne moom mooy euh, koña compliqué wul ndax mbër mu xees la te mbër mu xees lu raar la ci làmb ji mm-hmm. ba pare mu jël karaw gi nag tent ko muy tent bu ba pare ngemboo ngembul rouge. Mhm. dugal ci biir blanc donc ki xàmmee koña jafewul trop moo féete seen càmm càmmoñ. Mhm. dumbul nag mooy jógee dëkk bi nga xamante ne mooy suñu ginnaaw fii rek yof nekk aussi yaakaar yoof gisal tànk càmmoñam ngemboo ngembu Lagos mbër lébu gi nag cosaan la ci ñoom mhm. ñuy ngemboo ngembu gis gisal tànk càmm ñaari mbër yëpp booy xool tànk càmmoñ leen jiite baa ma suñu dem maawo ñi léewtu ah dumbul di déplacé dumbul il nga gis ne Kogne la très concentré ci combat bi respecté combat bi jox ko cëram ba mat sëkk fermé taxaw fixé ko le visage di ko xool di léewtoon ndànk-ndànk c'est important parce que Doumbul euh, euh, c'est un bu très dangereux xool Doumbul bi ngi déplacé naka lay naka lay déséquilibrer adversaire am ci déplacement yi de gauche à droite mais Kogne toog di ko observé di ko xool rek yëkkati nekk en garde nag Kogne sàgganul bi benn yoon waaw léegi nag ci biir léewtoo bi. nga seetlu ne kii di dumbul mu ngi nekk en pour bañ jot ko bañ mais dumbul nag léegi moo téye nag fi nga xamante ne mooy loxo kii di koña di mbaru pikin bi ah koña raful tiitul dawul lu dul di xool adversaire am téye na sama loxo droite sama loxo gauche mu ngi ci kanam koña ba léegi fi mu commencé ci combat bi dafa nekk ci logique concentré du xool arbitre am di xool adversaire am vraiment carrément carrément may ko mu jàll benn poussière de de quoi que soit pour mun ko mun ko tromper baawas ñu dem Mawo voilà léegi nag dumbul sànniwul kurpeñ mébul deful dara dafa jàpp loxo rek dem yooru ji amul benn fent bu mu def boo bëggee peinture asamaan je pense que di nga teg di nga teg ay échelle mm-hmm. daw na coppet dugg ak dugg bu mu dugg encore dugg bi def ko boole gëmm encore mati c'est important ñu koy wax ah parce que day tax xale yi gën a mun jàngaat song boo koy def say bët dafay ubbi nga xool fi nga jëm mais dafa gëmm def genre liñ naan jébbalu joxe boppam carrément waaw léegi nag bu mu joxe boppam bi mu joxe boppam ba ba ba contact am euh, ki nga xamante ne mooy dumbul euh, ki intercepté ko. maawo ni ko kooñaa intercepté. crochet xool kooña génn loxo ba. dumbul loxo baa ngi nii ci suuf di war a jàppe tànk ñu dem Mao mu crocheté ko daal di désaxé nag c'est important Mati mm. nga taxaw ak nit nii bugg ko xalab foog nga désaxé bàyyi ko mu dem ci vide bi li mu naan yóbbu naa ko dans le vide donc daf ko dafa def déplacement bàyyi ko sànni ko dans le vide ak agressivité quand même ah. parce que tamit lu yomb laa dooleel ko xëcc xalab ko carrément. tànk ba téqatalu gis nga mu samp tànk pied d'appui bi dem koña amatu ci amu ci benn souci ah mu nekk jël bu extraordinaire bokk na ci jëli yi nga xam ne dafa rafet nag ndax mati façon jëli mel nii mbër bu am responsabilité moo koy def parce que tànk mhm. neexul joxe nga bàyyi waay ñëw nga intercepté ko bàyyi ko sa tànk wan ko ginnaaw jàppal sa tànk nga bu jàppal sa tànk loolu ñu ñuy wooy daf ko nooju mhm. mais dumbul jotul laal tànk bi donc daf ko jël rek xalab ko ah ko mu dem carrément wax nga ko tuddee wéele. waaw mën nañu ko tuddee xalab. xalab fait de compte. d'accord wax nga ko léegi dafa gëmm bi. quelle force quelle puissance xoolal. xoolal ni mu ni koñaa toll ak ni dumbul toll ak ni mu ko téye xalab ko sànni ko mu mel ni benn benn benn pigeon boo jël sànni ko noonu comme ça dans la rue. c' est extraordinaire pourquoi loolu am ak Mati moom mooy. Mm-hmm. Mm-hmm. dumbul ni mu bëree c' est moom laa xam nga boo boo xàccee xàcc yu métti yooyu yaakaar naa ne booy ñëw doole ngay ñëwaale dafa mel ni amoon yëpp balaa muy ñëw di egsi ci mooy jeexal na. waaw xam nga Mati boo téyee loxo mbër. Mm-hmm. comme ça téye ko carrément. pour nga daw wàcc di ko bëtt. mais foog nga foog nga mimer ko quand même. ko fent. la fent mépp ko mu siggi nga daw jël ko. mais que loxo bi annonce loxo bi pourquoi mu nekk annonce mooy loxo bi moo lay annoncé ne mhm. lu waa ji def déjà téye nga sama loxo mati waaw loo ci def rek dama koy yëg boo bëggee ñëw dama koy yëg parce que da mhm. sama loxo mhm. donc loxo bi comme que téye na ko rek dafa ko dafa war a fent pour mën mën dem jël ko mais téye sa loxo

jël ko maa boppam jarul ñu koy conseillé. Mhm. bon c'est vrai donc bëri naa ak lucidité et puis noonu la mos di bëree ah je me rappelle très bien au stade Demba Diop yàggul rek muy bëree bi nga xamante ne porte drapeau chef de l'état ni mu ko def. Mhm. muy bëree ak Wuli 2 fii ni mu ko def mbëri yi mu fi bëree yëpp dafa leen a xeex il est coriace ba pare dafay bëree et puis ñemeen responsabilité mbër c'est important mbër da ngay responsabilité am filingu bëgg a def dara encouragement aussi ah, ak ki nga dumbul mm-hmm. la dara xewagul mm-hmm. yaa ngi nekk ci écrit boo xamante ne écrit bu bees la gënal góorgóorlu a rectifier ah loolu la ah. incha allah défaite boo gis na dafay préparer victoire victoire kon nag saison bi jeexagul fii ak saison bi jeex dumbul war nga fee mën a amaat ay combat moom itam ñu koy félicité baax a bi kooku nga xam ne moom moo di Kogna li ñuy def nag di delluwaat Gambia comme ni ma ko waxee sànq ànd ak nag euh, sunu mbër moomu léegi nga xam ne moo di xoyanta xoyanta a moo di naa bu ñu sant yàlla jël ci yonent bi di gërëm sama ñaari waajur di gërëm di gërëm sama sëriñ Mahamadou Lamine Dieng Ndiaye. ñu laa la daal gàtt. waaw ren moom combat yi bëreegul lool xam naa dem na ci ay cinq combats cinq victoire mu des suma diggante ak Gambien mu diggoon ci éet mu bëgg a ñëw jàpp daan ko. est-ce naa ko bu baax waaw. nan la fas yéene si diggante moom. Jambeen waaw dafa am benn rajo moo toog ma ne Jambeen sama diggante moom mu ngi dépendre ci moom benn mu ñëw toog su toogee baat bi si la dinaa ko jëli su ñëwee mu gaaw jox naa ko cër na wax dëgg yàlla waaye xam naa ne fu mu mënti demee ak fu mu mënti demee rek xañ na lu ubbeeku rek pour kenn war a dem fenn te kenn du fa dem waaye gëm naa ne bëre bi nekk ci man sax nekk ci Jambeen. loolu mooy différence bi bëre Sénégal ak bëre Gambie. différence bi yëpp ci sama gis-gis bu gàtt xalaat rek mooy làmb yi ma doon benn ndax ñun làmb bi ñu yëngatu tey dafa doon loo xam ne dañ demoon ba yéeg musique ñuy far di wàcc maa ngi koy wax nag ñëpp di ko déglu képp ku ko déglu nga xam ne yaa ngi nekk Gambien wala nga nekk Sénégal te man ci dara ñu ngi lay ñaan dimbal nga wax ci borom réew mi mu dimbale ñu ngir yàlla mu delloo suñu bëree dóor parce man am naa combat benn combat bëree dóor man ak waaye jiitu ñu jël ko foofu ren mel ni combat yaakaar naa moo fi daw ñu arrêté bëre dóor bi muy nekk bëre simple te bëre simple bi du ñu yóbbu fi ñu bëgg dem kon am na beneen bëre bu ñuy yóbbu xamaguñ nag lan moo xew bay arrêté waaye ci ba léegi ñun ñu ngi ñaan ñu ngi jéggalu ñu ngi gëstu pour ñu delloo suñu bëre dóor bi waaye ba léegi xamaguñ fan la. ñaata séance d'entraînement nga def par dinaa am trois journées trois séances par jour bi damay xëy entraînement ay fajar. cinq heures laay dem neuf heures laay jeexal sangu nelaw onze heures trente ma jot ñëw fii une heure laay jeexal saal bi ñu bi quatre heures may fekk fii maa ngi sax ci ndem pour fii ci ak contact euh, soxal fet def na ci euh, ñëw Dakar pour bi waaw maa ngi koy xalaat parce lu ma bëgg la ndax yàgg naa Dakar def naa fa ay igri yu bëri xale bi ñu bàyyi rek sama bopp ñi nga xamante ne non dara bi ci jàmm bi ñu toppatoo indi ko ay solution yu bàyyi loolu am na war a tey ñoom. waaw ñooñu xam naa ne yàlla rek moo mën a fay. yal na yàlla fay leen. ndax damay gërëm fi mu ne nii ndongo si dañu yor këram amul dara lu maa ngi gis man saal bi ñuy train boo xoolee lu mat ay tender la fi fayal ñuy train suba ak ngoon gërëm nag fu ma dokki bëri di ko dalee ci weñ bi arobas tiisal bu laal maay gërëm ñëpp su ma libéral ci mbir yi damay juum. asalaamaaleykum Gambia man Flex maa war a bëree Jine Mori on the 28 maa ngi ñaan Gambia yëpp ñëw ma support ma ma daan ko roobe incha allah rabe. asalaamaaleykum man la Jine Mori bu Gambia nekk Serekunda mbooloo. Euh, ànd fa nekk baag ay xare di liggéey di góorgóorlu di liggéey di làmb waaw. ñetti ko mbaa nga mujj. waaw mbapat nag dafa gën a bëri ku ñu xam xam ci mbapat man maa fi bëri woon ak am nañ fi juróomi combat ak bu doon muy juróom benni combat waaw am ñaari deret. dëgg la loolu bi maa ngi war a bëri fan yi ak euh, ku ñuy wax Flex mbapat. waaw daal combat bu mag la woon jàppoon ko ba pare problème amoon ñu toxal ko maa ngi war a bëre moom samedi bi ñëw incha allah samedi la kañ. samedi euh, la vingt huit. vingt huit februari. ban fan la. Ousseynou Paak. nag xanaa ci àll bi daal mbapat. waaye bëgg naa bëri allah. mais fii ci sa sa Gambien laa waaw. waaw. Sénégal bi. Gambien laa waaye nekkoon naa Sénégal na jàng naa ko. waaw jàng naa daara boobu yàgg ko. Sénégal bëri fii. waaw bëgg naa ko suñu amee jàppale noo jàppale xam nga ñun moom muy fii ay xel la ñu bëri sax ba pare am ñu bëri ñu ngi doon jéem xëcc sax. waaye comme fii loolu doo dafa commencé woon nekk mën a nekk nekk ñu defagum dara daal ba xam nga xam ne bu ñu jógee am ñeneen ñu ñu topp. parce que ñu xam ne ci àll bi la xamoon di bëre mbapat bi ñu ñëwee doole ñaak sos foo ñu dem bëre fi yàlla ma ñu defe ñu koy sant yàlla am euh, euh, di ñaan rek xam nga ñu di ñaan njiitu réew mi tamit di ñaan dëkk bi su ko yi mën a indiwaat parce que mooy mu gën neexal daal parce que koo xam ne yàgg nga ci mbapat boo demee ba dugg ci bëre dóor buñ ko delloo si waatee tamit ñu mooy gënal daal ñu ngi koy léegi bu bàyyi la nga fa see supporté say amoon waaw di ñu woote rek ñu di nuyu waa Sénégal bu baax di kontaan ci teew dajeeg yow ku mel ni yow parce am na lu bëri lu ma jël ci ci bëri ci bi ci yëkkati euh, naa sama gisee muy bëri li nga ci lu bëri di sant waa Serekunda ak booy yi ma àndal ñoom giri bu Mbacke ñu ngi ci man ñoom booy ñoom building booy yi nga xam ne ci man lay nekk di nuyu tas sa yaram booy yëpp ci man lay nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu promoteur mu nekk noonu Gambien ak nga xam ne moo di euh, non Gambien mu nekkoon xoyan xoyanta ah, sama xarit bu bees sama xaritu mbër bu bees bi. waaw mooy xoyanta ah, moo dajee Gambien waaw ak ji mais dugg na ci dugg na ci gaal gu bari fi nag. bu dee hmm? Gambien rek beneen affaire la. Hmm? Ah. Euh, mais mais Djine Mor itam mooy bëri ki nga xam ne moo di flex Djine mooy dégg naa bëri na ak nga xam ne moom moo di Zos. bëri na ak Zos wane nañ ko fii ci Télé Futurs Médias mhm. ah. xam nga gis nga tu vois que Gambien ñu ngi góorgóorlu. Mhm. di jël mbëru Sénégal yi dañu di Gambie ñuy bëri. Mhm. donc dañ ko fi bëggoon installé donc nag vraiment. dañu dellusiwaat rek demandé waat encore solennellement le ministre of sport ah. ku baax la ku ubbe ku ubbeeku la que mu delloo si jàppale les lutteurs mhm. jàppale aussi ñi nga xamante ne mooy les promoteurs mhm. parce que gros projet bu mag la parce que da bëgg a répété waat rek Sénégal ak amul différence benn géej gu xuus la ci biir Sénégal moom Gambie donc li ñu ciy dox yëpp moom mooy jàmm salaam collaboration yi am jaxasoo yi am sa bàjjana nga fa. Ah, waaw wallaay sama yaay nga fa sama papa nga fa sama lépp nga fa ñu ubbiwaat bunt yi pour militaire gambien mën a exprimer wu. et puis encore mati am na keneen koo xamante ne dañ ko waroon découvrir te gisuñu ko malheureusement temps bi may ñu ko. benn mbër la bu tudd Kinta Kunte. Kinta il fait 139 kilos. Mm-hmm. am 21 ans. grand mhm. a mat 1 mètre 90. macha allah ñëw Sénégal bëri la bëgg te nee na pour mu def ko foog mu bëri Gambia ba ñu xam ko donc nag donc les a à vous d'ouvrir la porte pour ces jeunes lutteurs là qui comptent beaucoup sur vous pour vraiment def seen carrière macha allah. macha allah kon comme ni mu ko waxee waaye moom Tafa ba tey daf ñu desandi foofu nga xam ne moo di ñu nuyu nag Gambien yi nga xam ni ñu ngi diwaanu Amérique tey seen xol sedd na loolu bi ñu gisaatee baax a baax mu Sinaya Diop ca diwaanu Qatar ñoom ñëpp ñu ngi bàyyi xel télévision Futurs Médias mm. Tafa Gueye la ñuy àndalaat ca diwaanu Gambia. any um, type of wrestling or any type of sport boo ko matee si loolu la des so suñ traditional wrestling suñ ko matee yaakaar naa ne suñ ko defee uh, effectively na nekk at the same level where Brode is in terms of annual revenue ah because li tax ma lu ma gëm li di dem si loolu mooy ne foofu lañ ne xaalis foofu la bëri CNG bu sport bu bëre bu Sénégal ñëwoon na fi def benn formation pour naka la ñuy taxawalee làmb dóor fii ci ci Gambia ban jeexital làmb naka la mujj loolu. waaw gisee naa ko gisee naa ko dañu ci télé bi la ñoom Rasmine association ñoo ko invest di bàyyi ah mu leen def ay exercice yi movie is okay. You uh, but uh, again, kung hindi mo gawa yan, eh, like, teka lang, name, name ko ubi, we will open it up. Name ko yung libro, right? Uh, I want to believe. While for now, uh, dan buka dahil, seen traditional way of dancing ma dama yaagoon naa bëggoon seetaan dure dama nekk xale lépp su bëree amaan dama dee dem seetaan ko parce que dama amoon tanta koo xam ne moom dafa bëggoon dure so dama daan dem ci moom mi maa yóbbuwaale ma daan man ko bëggoon seetaan dure laa bañ so su amee ci télé yi sax Sénégal dama koo nekk ak seetaan rek ok euh, madame la ministre euh, est-ce que bëre dóor bi Sénégal euh, si dugg ci gàmm candidat am ngeen ci na ko parce que man bëre dama foog ni ñu ko xamee woon mooy di ko def te duñ dóorante gaañante man li ma bëgg mooy ñuy def bëre sampal parce que boobu man daf ma dee jëfam su ma seetaan bëre gis ñu dóorante gaañante man du ma a gis loolu te li ma bëgg mooy ñu delluwaat ci cosaani bëre parce que comme dooree dóorante yooyu gaañante nekkul ci woon léegi lañ ko isi xam naa affaire boxing moo tax ñu ñëw parce maa ngi gis ne bëri de bëri Sénégal ñu ci bëri dañ dee dem ci biti jànga foofu su defee su ñëwee man dama foog ne moo isi dóorante bi ci biir bëre mun naa am ne du loolu nag waaye bëre ni ñu ko amee ci cosaan bëre sempal la am na mais ni seen batat yi ngeen di wax tey ñu ci am bëre boo ne bëre bu important dafa am important trop parce que bëre bi ah ñu suñ président c'est professeur Alhaji Ejeji Jammeh ah toujours moom dafa nekk ni koo xam ne dafa gëm réewam comme dictalu comme culture boo ko xoolee toujours bu ñu da nga xam ne kii africain la. kon loolu yëpp ñu ngi def fii rek. day indi jël soo bëree bu amul sababu yi ñu taxaw ni yow am nga Gambia bu daan daan ñëw fii bëre fii la nekkoon daa muy def Sénégal dama nekk ne fii yoon cosaan la te bëri toujours ñu ko ñu ko indi mooy ah, bëre bi nga gis ni mooy ah, bëre cosaan mooy boo xam ne ñu ngi ko ooyee traditional wrestling boo xam ne moom ah, ngeen ne woon mbapat loolu la nekk di def parce que lii mooy nekkal cosaan mën nañ nekkal dund so isa talan si man toujours daf dee wax ne su ma amee lu ci biir réew mi damaa indi cosaan cosaan bi mooy lan mooy bëre Thank

Bamb yi. macha allah macha allah man ni Kole albarka laa wax di kontaan bu baax a baax encore tata ñaani Camara ak euh, borom këram Nuxan foofu ca Serekunda ak waa Serekunda yëpp tafaa nag tey dag maa yóbbu sama dëkku yaay nag wax dëgg fa yàlla. ah mais très bien Mati euh, euh, très content maa ngi ñàkk tooy xep. ci mhm. lii Mati xoolal xale yi. mais ñoom cosaan li ma gën a neex ci affaire mooy cosaan y a pas de caxagun ni xigin cosaan la ñuy fecc cosaan la maanaam lii boo ko fekkee sax yow da ngay trop fier même mati xool séeréer bi de fecc séeréer joolaa bi fecc soose bi man di xool joolaay mm. mais c'est beau échauffement la. macha allah donc mhm. dem ah xool surtout que jeune teint clair là. Mhm. Papa numéro 2 en plus li gën a doy mooy ci lambu Gambien yi boo tegee ñu lim yi bëri dañu naan Gris numéro 2 Tyson numéro 3 Yékini nangam nangam. tur yi ñu nekk mais Sénégal référence la. mais seen référence la ñu doon parce que lamb ji peut-être fii envol. Mhm. envolement ko mais en tout cas daal vraiment ñu ngi encore félicité waat les Gambiens. i autorités parce que tamit li ñu def ni alors autorité yi surtout. Eh, en plus Mati li ci gënoon neex moom mooy. xam nga ñoom bu ñu mosaan def seen fête indépendance mbër yëpp dañuy daje Kanilaay chez le président Jammeh. mu toog seetaan leen ñuy bëri toute une nuit. Mhm. cette fois ci nag euh, ñu ngi ko organisé à Serekunda. Mhm. xam na bientôt ñu ngi demandé le président Yaya Jammeh. son excellence docteur ah. le professeur Yaya Jammeh Ejiye Jammeh. mu fii avant indépendance bi ñëwaat. mu organisé waat un grand gala de lutte Kanilaay ni mu ko doon defee parce que dafa bëgg làmb. président buy toog sa dëkk. chaque deux mois nga ne mbëri nañ ñoo bëri. mbëri yëpp ñoo bëri nga teg somme d'argent bu

ñi ngi Gambie daal ñu ngi di nuyu di leen remercier leen sargal baax a baax di mhm. bi dem nañ Gambie jëli mbër yi wan leen fii noonu lañ ko bëgg a defee fépp fu dëkk fu bëri am ci Afrique soo waxee ñaan ñooñu sama xel day dem ci Assane Ndiaye ah ak ñu a baax a baax kontaan ak ñi mu àndal ñëpp waaye sargalaat waa bisik yi nga jàppale ñu lool nag ku ci mel ni Xadijatu lii ak kooku di madame Ba am satu wala ab satu wan ak kooku di Alioune Badara Cissé Penda Seck ñoom ñëpp ñoo ngi bisik ñuy kontaan ci bu baax baax li ñu def nag moo di abu ànd ak yéen dem xool li nga xam ne moo di taaru lamb taaru lamb sargal ci képp koo xam ne da di jigéen ak jigéen yu rafet yooyu la ñu àndal Mbaye Fall jërëjëf yow itam. te taa ak góor ñi mat ah, am na ay <laughs> nag mais nag. dañ joxoon jigéen ñi rek mais jigéen ñi nag mais jigéen ñi nag jigéen ñi ñoo ko taaral ah. waaw ah, ñoo ko taaral d'accord nañu lu leen wax loolu la lu leen di bëgg a wax sax loolu la. <laughs> ah dégg nga Maawa nee na léegi daal concurrence la. concurrence lay doon dëgg la dëgg la. <laughs> di ci nuyu jotaa Aminata Diané jabar ci kooku di suñu tonton Diop si mu ngi lay nuyu bu baax a baax. merci di kontaan ci moom bu baax a baax madame Diop tata Aminata Diané di kontaan ci moom bu baax a baax. li ñuy def sargalaat ko baax moom ne fan yi ak ñi mu àndal ñëpp bàyyi ko xel foofu ci diwaanu Colobane Mbaye Fall dañuy àndal ci li nga xam ne moo di suñu zapping. yes ñu dem. su paree rek Malal Ndiaye nga koy topp. gis nga amul pressing. daw na dugg ndax baax na gudd na de. dugg gudd na xaar di ngi dóor ci suuf. Xaadim ma ngi yóotu waaye jàppagul fi mu jàpp ay téere la. doomu su lay doon écrit si Saloum Oustaz Sow écrit su leen koy tas léegi nag dafa bëgg a jeexal làmp ji daf ko bëgg a tas ci saako yi su lay su lay dóor na Oustaz saako yi ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo. Oustaz song na waaye song bi Souley sol na ko loolu daf ko ëñ jàppante nañu Souley boobu ngi bëgg a téye ci ginnaaw yi Souley taf na ko mond na ko takk na ko wéeru na ko. ndax moom soo mu gisee soo ma gisul yëpp di nga ñëw. Mhm. mais man su ma gisee dem entraînement sax ay booy yu bëri dootuñu demante. Mhm. waaw. kon Pépar Diop Bourson bu la bu la tàggatoon ci entraînement yi. parce que entraînement yi moom wax dëgg yàlla tu en forme macha allah. Mm-hmm. loolu on a dit pas. mais soxla woon nga expérience am c'est-à-dire mu ne la defal nii defal nii defal nii ci sa jano ak. waaw parce que comme mag sa magu écrit. waaw ñëw sa jour sa bis. Mm-hmm. sa bis euh, comme mu ngi lay bëre stade mu ñëw taxaw sa mu jëlee ak conseil loolu day am lu muy def si Bucky. marqué. Nous n'en sommes même pas à la mi-combat. Nous sommes en direct. C'est en exclusivité de Las Vegas pour un combat de légende. Et le mot n'est pas trop fort. En cette fin de roue, nous l'a été dominé. Marteau dans l'arrière Attention, il est KO Il est KO Sur la droite, au moment où le gros retentit Manu Pacman est KO Hallucinant Victoire de Martin dans ce ñoom ñaar ñu ngi waxante waa ndax te temps bi. mën na arrangé Xaadim mën na arrangé de. fii ñu toll nii ba bu temps bi jeexee da ngi dóor Cissó Cissó. Moussa jël na ko arbitre bi génn na arbitre génn nañu arbitre bi sifflé na. Ibrahima Kanté Sarr. Seynabou Diallo madame ay sargal ko bu baax a baax moom Mbaye Fall mi nga xam ne nag macha allah moo ñu defal loolu nga xam ne moo di sunu zapping kontaan ci moom bu baax a baax Moustapha livre bi animu li ci cumukaay. li ci cumukaay euh, livre la boo xamante ne le sorcier de Fass Moussa Gningue. Mhm. Euh, moo ko bind moom ak ku ñuy wax. Euh, El Hadj Malick mhm. ah, donc ñu ngi def lancement livre dédicace bi livre yi euh, samedi lañ koy euh, astafurlah jeudi. Mhm. incha allah moo ci njëkk am. moo ci njëkk am donc mhm. jeudi incha allah ci euh, Nduta Seck lañ koy la ñuy présenter livre bi. incha allah foofu nga xamante ne moom mooy Nduta Seck Moussa ñu ngi le sorcier de face. ku nekk xam ne digganteem ak ah, moom. macha allah def yëpp ci affaire ñaan ak xar foofu ak nu muy demee. ñu ngi ci livre bi nga xamante ne moo nekk nii sama loxo. nekk nii devant votre écran. incha allah alxames ci Nduta Seck à partir de. 15 heures li ci cimbukaay dégg nga ko Moussa Gningue jeudi la incha allahu rabbi maanaam ginnaaw suba à partir de 15 heures foofu ca Douta Seck bu ko kenn wutee mbër yi maa ngi leen di diggal ñu wut livre bi parce que nag li ci cimbukaay lépp kenn da koo mun ta wax moo tax ñu bind ko <laughs> ah Moussa Fall ah, <laughs> euh, kon nag ci noonu la ñuy jaar dem seeti ki nga xam ne moom moo di Iba Kane euh, mu defal ñu statistique ki nga xam ne moo di Marley ak ki nga xam ne rek moom moo di Naaru Sogas waaw l'Oeil du Tigre Moustapha nekk na émission boo xamante ne déjà dafa am benn particularité boo xamante ne lu ma jaaxal le fekk que jigéen di ko présente euh, nekk na contraste boo xamante ne dafay wane ne làmb yëfu noble te am na nag ay rubrique yoo xamante ne tu sens que de la recherche dans l'Oeil du Tigre euh, da ngeen di jéem a dem jël artiste dugal ko ci làmb ji jël un journaliste sportif dugal ko te pourtant am ngeen journaliste fii futur euh, observateur defu leen ko da ngeen dem jëli ku spécialisé ci làmb indi ko. asalaamaaleykum mbokku téléspectateur TFM ak sab ay man Iba Kane bu sunu làmb maa ñëwaat ak yéen di leen defal statistique si combat buy dox si diggante Marley bi nekk école de lutte Pape Kane ak Naaru Sogas bi nekk xam sa cosaan combat bi mu ngi am le vendredi 6 mars 2015 stade Iba Mar Diop organisé par le promoteur euh, Dieye production tey nag maa ngi ñëw si statistique boo xam ne combat bu am solo la si diggante Marley ak Naaru Sogas. parce que ñaari mbër yëpp dañuy aspirer jouer les grands rôles dans l'arène Marley euh, bilan am ni la tëddee treize combats la disputé si treize combats yi am na si neuf victoires pour quatre défaites neuf victoires u euh, Marley yi nii la tëddee Marley Modou John numéro deux la daan daan na Gris Junior daan na Wuli daan na laay Bey daan na Pape Ambrène daan na Tafatine numéro deux daan na Ousa Sow numéro 2 bu nekk Fass daan na Mamadi Ndiaye mujjee daan Farouz donc yooyu mooy 9 victoires yi nga xam ne Marley bu nekk école de lutte Mor Fadam enregistré na ko Marley tamit concédé na 4 défaites les 4 défaites de Marley sont Marley trompeur moo ko daan doomu Jalaaw Valdo ak doomu Dangu donc yooyu mooy 4 défaites yi nga xam ne Marley am na ko léegi ñëw si Naaru Sogal bi nga xam ne école de lutte xam sa cosaan la nekk moom 10 combats la disputé si 10 am na si 6 victoires pour 4 défaites 6 victoires naaru Sogas Abdou Ngaka la daan daan na Tafatine daan na Lagrosse daan na Yanda daan mujjee daan diiru jaan pakkawo mu ngi ko daane stade Me Babacar Sèye bu saint mais euh, Naaru Sogas am na quatre défaites Naaru Sogas bu nekk Dakar bu nekk Dakar bu daan ko Siteu daan ko ko mujjee daan mooy Paul Maurice donc statistiques yi laa leen andiloon si diggante Marley ak Naaru Sogas muy am le vendredi 6 mars 2015 stade Iba Mar Diop maa ngi leen di jox rendez-vous mardi prochain si beneen numéro incha allah. jaajëfal ko bu baax a baax kooku di Iba Kane mu ngi leen di jox euh, rendez-vous mardi prochain waaye ñun itam bu ñu fàtte ki nga xam ne moo di Moussa Moussa Diama ma nga xam ne moo nekk diwaanu Kaolack moom itam am journée bu rëy ci li nga xam ne moo di le 8 mars ci diggante Sa Thiès ak usine doole foofu ca diwaanu Saloum ni ñu amee Sa Thiès fii ci Dakar ah am usine doole fii ci Dakar noonu lañ ko amee foofu nga xam ne moo di Saloum promoteur bu mag boobu di Moussa Diama di ko nag tëgg Moustapha yaakaar naa ne ñoom itam daañu ñëw ci émission bi waaw collaborateur bi nga xamante ne mi ngi tudd Tooba mhm. donc vraiment euh, Kaolack dañ koy fàttali ko waxaat centralu làmb la mhm. ay grand champion fa dëkk ba pare mhm. dëkk la boo xam ne Saloum bu fàtt mati Saloum roof la ñuy bëree te diggante Fatick Kaolack ak dëkk illu illu Saloum yëpp bu ñu màbbee ñëw Kaolack moo tax Kaolack yàgg am ay très grands champions de lutte mhm. donc bientôt le 8 incha allah à Kaolack incha allah nañ dem incha allah assister ji le combat bi nga xamante ne moo tax ci Sa Thiès ak ki nga xam ne moo di Balla Gaye le roi bu Guédiawaye ak nga xam ne moo di Eumeu Sène mi nga xam ne nag macha allah moo jiite li nga xam ne moo di ay si nga di combat boo xam ne nag euh, sénégalais yi ñu ngi koy xaar ak doole mat yi euh, foofu dama la ciy këf pourquoi ma la ciy këf moom mooy mhm. Euh, le patron du groupe euh, Futur Média daf ñu mettre en compétition en compétition moom mooy pour ne pas dire daf ñu mettre ñu nekk en concurrence ak ñeneen ñi mais mhm. c'est normal ah combat bu mel nii boo ko mhm. jëlee am chaîne de télévision bu mel ni TFM mhm. ku nekk war na ba ci mën a bay sa waar ñun nag dañoo bëgg kenn duñ ci mën ñoo ci bëgg a mën waaw ci bëgg a ne kenn du ko def mm. et derrière a Mao Cissé derrière mais aussi le concepteur ki nga xamante ne mooy émission bi <laughs> muy Mbaye mm-hmm. ci ginnaaw ba léegi nelawul mm-hmm. guddi du nelaw bëccëg du nelaw ci bind jëm mm-hmm. naka lay defee ci diggante Balla ba kenn du ne un ne d' accord nañu ak yéen ci loolu lay dund benn bi nag ñu koy def le 24 mars. incha allah lay tàmbalee Balla Gaye numéro 2. Mm-hmm. gis nga ko ni xool xool ma les affiches mm-hmm. xool ma les les affiches. ak ak ñi dippee drapeau bi nag nga xam ne macha allah lépp Lamine Diack Lamine Diack un grand sportif. Mm-hmm. plein nekk suñu papa nekk suñu nijaay ñu yàgg koo gis depuis tout tànk ba pare ñu def ñu def loo xam ne Moustapha man li ma gën a li ma gën a frappé gën ma ci neex mooy monument de la renaissance. xam nga euh, maanaam ñu koy fréquenté bëri na bëriwul. mais face à face bu njëkk bi la 3 mars est-ce que xam nga fa lañ ko nar a amal maanaam. Euh, aménagé ko tellement ba boo ñëwee da nga yaakaar ne yaa ngi ci biir stade bi. Mhm. mais exactement même la renaissance bi ñu ba léegi. Mhm. amul benn manifestation bu am maanaam. waaw mais nag premier événement bi am extraordinaire. Mhm. mooy ki diggante Balla Gaye numéro 2 te ki koy tëgg nekk nag le groupe Full Media. macha allah te rappel mu tur bi. Euh. <laughs> Mati man dafa am problème pour wax turu euh, entertainment ah <laughs> entertainment noo koy waxati Mati. voilà entertainment vraiment ah, xam ne Charles moo ko jiite. vraiment liñ ci bëgg a def Mati ëpp na. ñu ngi koy lijjanti ñu ngi koy dox ba. su boobaa mais ak beneen combat beneen bu ñuy xaar di diggante nag euh, Gris Bordeaux ak Tyson combat boo xam ne que ni maanaam dañu fay toog 2014 ba 2014 jeex. Mhm. ñu koy xaar 2015 kenn ku nekk di xaar dina am du am. kañ la exactement. Mhm. exactement le 3 mai la am incha allah ci stade Demba Diop. incha allah euh, Aziz Ndiaye le promoteur ñëw na déposé ay bagages am fii ci TFM. Mhm. comme d'habitude koy dëgg. li ñu kalaay ñoo ay bagage fii mhm. loolu mooy li Youssou doon wax rek mhm. dama soxla dream team bu leen xëccoo bu leen werante tôt ñëw mhm. aujourd'hui ñëpp ngi ñëw parce que kat mooy la la meilleure des mooy la télévision la plus regardée la télévision sénégalaise la plus regardée dans le monde. xanaa déggu ñu la camion <laughs> benn naante rek koy dawal. exactement donc nag Aziz Ndiaye combat boobu. <laughs> ñoo na fi déposé ay barrage am. fii ci TFM. Mhm. Mhm. pour ñu defal ko ci liggéey bu mucc ayib. jël na aussi liggéey bi. Mhm. Euh, dénk ko aussi le le manager de ah, Tiger Production. Ah. ki nga xamante ne mooy l'auteur compositeur de lépp loo xam moom moom ci lay di tigri. mi ngi suñu ginnaaw ah, bu leen ko fàtte mi ngi suñu ginnaaw ah. mu ngi jàll. Balla <laughs> Bordeaux astafurlah hmm. Gris Bordeaux Tyson Gris Bordeaux Tyson combat la boo xamante ne ñaari lutteurs yi soxla génnaat bokk la ñu hmm. hmm. a bëgg daanaat dëgg la maaw nee na dinañ ci ñëwaat ndax nag mu sama ginnaaw ah wax dëgg fa maa ngi kontaan ci moom a a ak Abdourahmane moom itam nga xam ne nag ndeysaan njaboot gaa ngi koy woow dañuy ñëw moo di kii kan la kii kan la nag yaakaar naa ne bi yoon ñu dem xooli ko. Moustapha kii kan la. mais Mati kii kan la xam nga boo ñu benn photo boo ñu wanee jàll ci mbër rek ñëpp dañu naan yaaw jàll donc bii nag am na sax ñu ma ñu envoyé message naan yi ngeen di wane dafa yomb. waaw kii ku gis xam ne kii mooy yaaw jàll <laughs> wax dëgg yàlla ah. nag gagnant yi dañu koy xool ci écran bi maaw mën nga ko afficher rek ñu liir ko ci li nga xam ne moo di écran bi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo trouvé que ni yaawu jàll ah mbëru mi nga xam ne nag moo di mbëru maître Abdoulaye Wade nañ koy faral di waxee comme ça su ne Penda Diouf bokk na ci ñi ko njëkk a ah, bokk na ci ki nga xam ne moo di Cheikhou Dieng Sall kooku moom suma turandoo papa bokk na ci ñi ko tontu moom itam taalibi Serigne Touba Mbacké Moustapha kan moo ci topp nag taalibi Serigne Touba bi nee na eh. <laughs> borom jaal bu rëy bi <laughs> xam ngeen yaawu jàll yaaw <laughs> <laughs> keneen ki ci tontu di Fama Fall Cissé ak kooku di Gilzo Bay di wàcc moom itam bokk na ci ñi nga xam ne maawo tontu na ko yëgal tuuti ma xool ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo ci topp bokk na ci Mor Gueye Baba Ndiaye bokk na ci kooku di Aïda Diouf bokk na ci kooku di Petit Papa Ali. ah Jaguar Jaguar Ndoye c'est un grand champion bu nekk États-Unis Jaguar mbër topp ñu rek macha allah ah, di kontaan ci mu baax a baax Jaguar Ndoye maa li ma xam lebu bi. nañu waaw yëgaatal Jaguar ñëwal bëri si ah, Balla Gaye di ñibbisi bu mu la fa bàyyi Fallou Gallasarich moom itam bokk na ci ñi ko tontu Alassane Amar naaru Darmanko bi moom itam bokk na ci ñi nga xam ne tontu nañ ko Penda Seck daal yi bokk na ci ñi ko tontu ak kooku di son yu bu Canta Diop bokk na ci ñi ko tontu Moustapha Sarr wala Sarr Moustapha moom itam euh, bokk na ci ñi nga xam ni tontu nañ ni ki nga xam ni moo di Yawou Dialla kon ñoom ñëpp bokk nañ ci ñi nga xam ni nga ne <laughs> bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñoo tontu li nga xam ne moo di kii Kanda kon nag Moustapha comme ni nga ko waxee bii di ñëw na gën a saf wala. waaw bii di ñëw na gën a saf je pense que ne ñëpp yomb na trop. pour ñëpp di mhm. trouver ah. mu jafe. Mhm. sur cent personnes au moins. carte trouvé ci loolu lay mhm. amee en jeu mhm. donc lay gën a metti man sax samay photo laa indi bi yoon nañu xool ndax man la léegi mais am 18 ans 19 ans di bëri ak léegi bokkul <laughs> image yëpp Mbaye Fall am na ko donc na ko génnee gaa xool kii kan la xam ah. hmm. euh, kon baax na kon xëy na mbay Fall ah dégg nañu ndax nag mu ngi ci suñu ginnaaw nañu indi image yi nga xam ni euh, maanaam Moustapha ba mu tolloo dëgg dëgg dëgg dëgg ah ndeysaan yaram daw na <laughs> euh, maa ngi nuyu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ngi doon seetaan Fatim Sey madame Cissé foofu ca diwaanu Paris Aïcha Sow Owayo di kontaan ci moom Yacine Sey sama rakk ji moom itam tutaan Dior moom itam di kontaan ci mu baax a baax demb Sall États-Unis Moustapha ku la sopp la ak kooku di Thérèse fay Faye Biram Penda waa Waline Fall la reine du dama lay sargal ak ñi nga xam ne ñoo di waa bijouterie l'islam nga xam ne nag macha allah xam nga wi di ñëw weeru jigéen ñi la ci ah, seeni sargal jigéen ñi muy ah. mois de mars weer bu màgg ngi noonu euh, ñu war ci sargal jigéen ñu bëree bëri xam nga jigéen ñi rek dañu bëgg or Moustapha ah, bëgg or bëgg nañu or bëgg nañu rafet jigéenu Sénégal moom mel noonu et c'est mm-hmm. bien alors jigéen or jigéen or pas de or <laughs> kon nag ku ko wax ak ku ko waxul yépp moom nga bëgg ma leen di sargal waa bichri l'islam rawatina kooku di Bilal sama xarit ah ak ña mu nekkal ñëpp tey bàyyi xel télévision Futur Média Abou sama taaw merci beaucoup mbay sama xarit merci beaucoup Atouma l'ami des jeunes fii merci beaucoup en promotion Mbaye Fall jërëjëf ak kooku nga xam ne rek moom moo di moom itam Muntaga nga xam ne moom itam moo nekkoon ca geneen wet ga jërëjëf waaye kontaan ci bu baax a baax ki nga xam ne nag ay bagage sama ngi tege rek ah sama xarit bi Abdourahmane soo kii rek ñu delloo la fa nga nekkoon waaye sargal bu baax a baax Maawo Cissé ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo doon seetaan Xalifa Mbergane du taay mukk te naan la kenn du yow ci man kon nii la ñuy def bisik di banque bu xarañ bii lamb soxlawul lu dul ku ko jàppale te ku ko jàppale mu jëm ci kanam bisik di banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce mooy taxawul lamb ji di ko jàppale di leen may émission bii du l'Oeil du